maa ngi lay ziar. maa ngi sant dèjà damay nuyu ñi may suivre ñëpp ak ñi suivre Picado TV. kontaan naa aussi tey waxtaan ak ñoom. kon bisimilah ñu commencé waxtaan bi. waaw bi lu ma ñu sa première question bi lay laajte mais temps yi sa adversaire dafa takk jabar. te yow lu waral ngay antenne ba léegi. man dama ko dégg disibile sax yàlla takk jabar bi dafa yeex sax. Mhm. moom comme takk la jabar moom nay daanu fële fi ma gars yi xam nañ fa nay daanu ko nar a ñëw daanu fi géew mhm. def noonu la. Mhm. nit da ngay doon responsable. jabar moo gën li mu nekkoon topp dëkk bi taxawal rek rek ku ne la lay def. au moins léegi sax dina fu mu féete. di wax nag combat bi mhm. alaaj may taxu may préparé man maa jël sama bopp jël sama ñëw di entraîné fi Mixta mhm. di entraîné avec le roi des arènes daa am mu bëgg dégg sa bopp waa Parcelles. dañu ñu def. mais fan yëpp maa ngi gis ne tamit entraînement entraînement yu mënul entraînement yu métti tey ñu ngi sa doomu day ko gis encore. waaw man man maa jël li may def nii déclaration sonal laaj dama ni na li may wax ni ma ñëw dégg mhm. man maa dégg samay jumtukaay waa Parcelles. dëgg la dégg ko waa sensation xarañ loo. dèjà sama président fan si club mi ngi police Parcelles. la la la comme que nag waa parcelle ñoo ñëw normalement ñoom ñoom grand seen baa ngi nii l'international le grand transitaire. dëgg la dañoo ñëw sama ginnaaw. dama bëgg combat bii. na ñëpp jàpp corona bu jàllee. su ma ci kaw ñu dóor ci suuf. dëgg la. Ah!